mbooloo bi ñu tàmm a gis ki daral buru fixe daa nekk amatul ñi nekk sàmmkat yi ñu fekk leen ñiy waxtaan jamono ji leen gën a soxal mooy nan la fexe ba ñu wàññee dundun xar yi dimbal bu dee dafa doon jar fukki dërëm ñu dimbali ñu ko ñu jaay ñu fukki dërëm ndoo juróomi dërëm bu dee dafa doon jar ñaar fukk ñu dimbali ñu bi ñu jënd ko fukki dërëm financement bokk na ci leen gën soxal la ci jamono ji ñuy waajal la feetu tabaski taa biñ koy def dafa xat parce que ci deux nga def ci demande balaa nga ci jot day fekk affaire bi yëg seen kon doo mën a ji mën a jënd ci xar tabas lu jëm ci wàllum politique élevage bu nguur gi bees bi ñi nekk sàmmkat yi jàpp nañ ni am na solution boo xamante ne buñ ko defee Sénégal dootul jéggaane lii di xar ñoom dañu war dem ci àll bi jox ñi nga xam ni sàmm yi ñu wóolu yi ñu jox leen ñu jënd xar yu jigéen ñu jox leen ñu sàmm ñu am xar yu jigéen dëkk réew mi am ay xar waaye ñoom suñu seen programme yëpp tabaski day jot rek ñoom nee na nañ jindi ji xar def ni voilà jindi ji xar kay wutal xar yi jur seetal ñi nga xam ni ay champion lañu sàmmkat lañ ñu ngi ci àll bi nga jox leen xaalis ñu jënd xar yu jigéen ñu sàmmi xar di am ci ci réew mi ci jamono ji ñuy waajal feetu tabaski éleveurs yi nekk fii ci Daral Rufisque ñu ngi woo autorité municipale yi nekk ci commune bi ñi jël ay matuwaay ngir ñu am opération bu muccee ayib